tey rekk ci mbiram Ousmane Sonko moomu nag la ñuy daal di desani ginnaaw bi moom bu ñu bu ñu takk dari souhaité que pour mu jaar fi nga xamante ne moom mooy ca corniche ouest ba moom njiital Euh, Pastef bii di Ousmane Sonko nag la mu xam le mooy daal dafa décidé pour jaar avenue Cheikh Anta Diop wante nag mbir mu nu mel dañ ko ko daal di tere ba tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy gendarme ji jamono ji nag ña nga génnee ay lacrymogène ngir tasaare askan wa ñu fàttali leen mbooloo mu takko takku jamono ji nag moo a ñoo génn rek ngir gunge ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ngir mu ji ci boobu le procès